salam salaamaaleykum wa euh, scène politique ak askan yi nga xamné ne ñoo ñuy suivre fu waay mën Sénégal wala bitim rew ñu ngi lay jagleel nuyoo jagleel ziar euh, di la yit it yow euh, particulièrement Moussa Touré. D'accord, monsieur Touré combien de temps que vous avez fait dans le D'accord, je me présente d'abord, je suis Papa Samba Traoré nek un jeune journaliste reporter de formation voilà donc ñi ngi euh, dugg ci métier bi euh, euh danaka duré nañ 2 euh, ans 2 ans yo xamni ni jural nañu lu bari ci suñu walu xam-xam ak suñu walu yokkute ci expérience euh amna lu bari lo xamni xam nañ ko ci milieu bi di ay découvertes yu extraordinaire ak yenen ak yenen yo xamni expérience de vie la. quelles sont les expériences que vous avez euh, effectivement milieu bi de euh, mën na ni dund nañ ci lu bari ay expérience yo xamni euh mën na ni nit dund na euh luma téméré at té euh, té amuko xeyna parce que ñun dañoo baxo di ado ñun fi Sénégal bo nekké journaliste li ngay ñëk na moom mooy ñaata année nga def li nga xamni ni exercer li nga xamni ni moom mooy sa fonction donc ñaata année expérience le ëpp li ñu lay na ci manam palmarès journaliste wayé 2 ans manam tuuti na néew na boo ko nattee ci at waaye néewul boo ko nattee ci expérience ndax lu bari xam nañ ko ci milieu bi muy lu baax muy lu bon aussi voilà donc loo xam ni mënees na cee addu mën na cee waxtaanu bëri baax a baax gas ko ba mu xóot euh, xamal ko ñi nga xam ne askan wi dañu suivre. Mm-hmm.

le problème yooyu nak, dañ koy hiérarchiser parce que euh, na ci dans le traitement de l'information il faut savoir hiérarchiser l'information donc euh, voilà kon lu ñu ce ci problème bi le problème bu plus flagrant moi, la corruption la corruption nak de la presse yaakaar naa Sénégal ñu bëri ñu ngi koy wax euh, ñenn ci patron de presse parce que dañuy bañ a euh, généraliser mën nañu ni euh, yenn ci média moo xam média public wala média privé privés. ñoom daanaka euh, aussi dañ leen di dañ leen di dañ leen di ger waaye ger googu nag nga xam ni euh, état bu bees bi mu dikkee wax na ci àdduna ci ne dana fexe ba xeex ba ger googu Sénégal euh, daal di fiy jeex voilà donc naka njëkkee ci li nga xam ne mooy milieu médiatique bi parce que mënuñoo jàpp ni boo nee boo nee les Euh, voilà dañ lay wax euh, né la souligner la li euh, ligne éditoriale voilà donc ligne éditoriale may fatali mbok yi man lima jappé ligne éditoriale du faral du and na ñak and ànd na du ligne éditoriale ligne éditoriale mooy manam bo nekkee ci média média bobu dafa am c'est-à-dire ben orientation bo xamni xeyna mom lay doxé orientation bobu mën na ni c'est des c'est des manam c'est ay charte ak ay conditions yo xamni vraiment média bobu bo ci dikké ci loolu ngay dox loolu bok na ci lan les médias média yoo euh, ay culture des média yoo sont politiques. politique am ñoo ici un domaine de spécialisation j'espère que donc euh, molem spécialisation yooyu nga xam euh, voilà dajale nga ko am ko ci média yi voilà donc euh, lolu moy la ligne éditoriale nak bo ci duggee nak vraiment da ngay suivre la ligne moy conduite yi nga xamni amna fa moy amna lo xamni xam ne waroo kaa génne am na ci loo xam ci lo xamni ni du sa du rôle du sa du sa du sa donc en résumé lolu la japp ni mom moy ligne éditoriale mais voilà donc corruption bi bok na ci problème yi nga xamni ni problème yi gëna grave deuxième bi moy problème bi nga xamni moy manque de formation yi nga xamni mi nga am ci certains ci ñi nga xam euh, soi-disant journaliste lañ parce que manque de formation bi bokk na ci Sénégal mënuñoo xàmmee de def la différence ak wala la part des choses euh, ci ki nga xam ne journaliste ak ki nga xam du journaliste parce que jàpp nañu képp koo xam ni yaa ngi téye li ma yor ni moi micro euh, wala alors yor li nga xam ne mooy portable wala il filmer sa caméra ñun Sénégal dañuy day jàppee considération la bon xam le lu d'ailleurs la dañ lay journaliste alors que tey jii euh, mën naa ni euh, euh, fi jamono toll ak audiovisuel nous mu j'espère que tout le monde apte pour mën a am li nga xam ni am dispositif yum mu soxla voilà donc sans portable bi bi ma yor nii mën bañ journaliste mais mën naa di informer chaque jour su ma voilà damay dem si benn événement su ma neexee daal di koy filmer bu fekkee loolu lañ jàppee ni mooy journalisme kon kon lan mooy à quoi sert dam ngay ngay dem ci école de formation voilà di def li nga xam ne mooy mooy formation en journalisme wala en communication bu dool bu dool bu dee loolu la j'espère que bu dee journaliste bi dafa yemoo ak askan wi wala ci ñenn ci askan wi lu ñuy def mooy lan mooy collecter diffuser sans traiter l'information sans vérifier les sources bu fekkee loolu vraiment euh, moom la journaliste bi di doxee ak certainement ñi nga xam ni dañuy woowee seen bopp journaliste mu boo côté ma usurpation té duñ ay journaliste bu féké loolu lañ jappé moom mooy journalisme loolu vraiment japp naa ni loolu c'est faux donc deuxième problème bi moy manque de formation troisième problème bi moy ci milieu presse bi dafa am li nga xamni moy code de la presse code de la presse bobu nak parfois daf ci am yu bëri ci biir yo xamni ne ak suñu ak réalité yi nga xamni mom moom la Sénégal di deb parce que damay wax sànq journalisme bokay définir il faut nga définir ko ci contexte il faut nga définir ko tamit ci espace espace bi moy fan moy Sénégal ni ñu jàppee journalisme ak Europe xeyna mëna baña doon ben euh, aussi tamit euh, voilà donc fële démocratie nous faut avancer avancé ak nu mu fa euh, euh, nu mu fa développé xëy na mën nañ bañ am loolu fii ci Sénégal vu que Sénégal tey jii wax fi dafa jafe parce que ça yoo waxee ñu dëkkal la fenn wala ñu ñu ni waaw ñii ñoo tax ñuy wax wala wala voilà ñi nga faral wala ñii wala ñii voilà donc problème euh, voilà problème boobu dafa grave mooy troisième bi ma bi ma bi ma bi ma voilà donc quatrième bi tey ci laay terminé parce que ci code de la presse foofu la waroon naa fee accentuer mais j'espère que foofu aussi bu la neexee am ay questions yoo xam ne mën sur poser sur euh, surtout ci quatre presse nationale et conditions yi tech pour pour pour jël ko parce que vu que Sénégal voilà am na ñaari xeetu journalistes am. voilà mën na cee dugg sax soo bëggee voilà ci quatre presse nationale voilà donc donc euh, Sénégal y a ni. Euh, tolloon na jamono yo xam ñu ngi doon wax naan carte presse nationale bu dikké xeyna lu bari problème yu bëri dana wàññeeku waye dañu gis ni carte presse nationale bu dikké dikkee daanaka réglé wul euh, mën ni un quart yi wala un tiers yi problème yi nga xamni mom lañu dund ba légui ni vu que euh, carte presse nationale pour lan la woon objectif yi lan la woon pour mëna xam journaliste bi nga xamni soit dafa dafa jaar formation parce que journalisme pour nga am licence journalisme bu fekkee lu sérieux la étude bu sérieuse nga def war nga am 3 ans de formation lu mu néw néw pour l'obtention peut-être euh, sur licence vous que que, voilà ñi nga euh, euh, choisir une chemin parce qu'au Sénégal il y a deux types de journalistes il y a des journalistes autodidactes c'est-à-dire des journalistes qui n'ont bénéficié d'aucune formation c'est-à-dire c'est des journalistes voilà yo ont, par expérience moo def journaliste am par contre ñu nga xam ne dañoo dem def formation ba pare wëlbatiku exercer ce métier ci stage wala exercer ko peut-être ci entrepreneuriat donc ñooñu aussi dañ leen considérer comme des journalistes parce qu'il y a des journalistes euh, freelance non la amé des géris non la amé ay journalistes reporters euh, non la amé ay euh, journalistes d'investigation ak ñeneen ak ñeneen donc yooyu yëpp nag ay branche la ci bir journalisme parce que y opposition une opposition, c'est entre le journalisme classique et le journalisme d'investigation journalisme classique mooy li ñuy faral souvent moi les reportages les publics reportages ces trucs là par contre les le journalisme d'investigation il ñi approfondir les questions parfois yi nga des flou approfondir aussi les sujets d'approfondir, approfondir dem sur le terrain di gaz euh, euh, di di creuser di les journalistes investigateurs voilà donc euh, ñaari journalisme a bu ko au Sénégal bu ñu un problème ah aussi tamit Sénégal les médias le type de médias il y a les médias publics et les médias privés médias publics donc moy média yi nga xamni ci nguur manam lañu ñu laxasu ak média yi nga xamni ay médias privés lañ yo xamni manam maanaam benn homme d'affaires wala entrepreneur wala lu moko ko tuddé mom mo ibbi média légui nak ñoñu nak dañu am lo xamni euh, dañ ko warul askan bi moy di leen informer juste et vrai légui nak dañu remarquer foofu aussi tamit euh, benen déséquilibre bu grave bo xam ne na ci ci ñi nga xamni euh, wax nañ nettali nañ né voilà bon même buñu ñu fay euh, euh, impôt nu ñu ko fay na waré j'espère que donc état bi nga xamné euh, euh, slogan moy djub djubal ak djubanti j'espère que donc ñu ngi xaar ci ci lolu voilà mu euh, di defaraat affaire yi ba nga xamné vraiment ñëpp dañu mëna fay comme na waré j'espère que donc problème bobu aussi problème mu bu bu bu garaaw la donc Moussa donc voilà mëna la bayyi nga dadi di xuus ba ci laji voilà voilà donc euh, voilà wax naa ko sànq Sénégal bon boko boko boo ko tay xayma tey ni ñaari xétu journalisme moo am dafa am journaliste bi nga xamni dafa jaar ci euh, manam école yi nga xam dañuy tagat taskatu xibaar fofu nak nag dafay def lu mu néew néew ñetti at moy 3 ans de formation wala mo am diplôme équivalent parce que dama ko faté won wax sànq euh, c'est-à-dire mën nga am licence tamit ci ci ci benen domaine bu journalisme lolu diplôme diplôme équivalent la mais à condition que sa expérience prouve ni effectivement yow tu es journaliste am ko xamni

Euh, mu euh, prouver journalisme ci expérience bi nga xam amna ko ak tant d'années d'expérience yo nga xam exercer nako ce métier donc ñaari type journaliste yooyu noonu ku ne tay mën bénéficier wu ci carte presse nationale à condition que voilà mu euh, matal li nga xam moy charte montax moo wax sank ne gën war nañ gëna a defaraat li nga xam mom moy milieu bi parce que ko nañ ci affaire yu doy war yo xam mi ngi ci parce que dafa am ñoo xam dañuy woowee seen bop ay journaliste te duñ ay journaliste té dañu ñëw rax ñu am ñi nga xam ñom lañu la les influenceurs influenceurs du journalistes mbokk yi askan wi

y compris les cadreurs y compris les les les les les digitaux voilà nous nous ko mën voilà nous nous dañuy nek à condition que c'est un travail mu am trois niveaux parce que le journalisme consiste à traiter à diffuser à collecter collecter sax du tout à traiter à diffuser l'information vous faites que qui xam ne yor portable de di filmer bu que remplir ces trois conditions là bu fekkee fekkee il collecte des informations bu faites mi ngi le traitement

ça mm-hmm. mm-hmm. ah, va jàngat ci euh, voilà bon dana jàngat ñu parce que mon tendance top li nga euh, Jean Paul c'est la logique la logique moi lan mbokk et yaakaar naa ni aussi euh, parce que dans dajé ci terrain bi mais xaw ko bu baax comme ni ko ñu bari xamé ak yenn confrères yi euh, liñ ñu wan moy mom taxawul ne je suis journaliste mais j'espère que mom animateur la voilà mbokk animateur moy kan animateur il y a des journalistes yi nga c'est des journalistes animateurs am journalistes yo xam dañuy animer des émissions mais pas l'animation bi nga xamni euh mom lañ japp di faral di def souvent dégg c'est l'animation nak animateur googu nak nga xam dafa spécialisé sur l'animation mom moy nek ci people bi wala nek ci euh, showbiz bi wala nek ci di animer genre yu genre demee non kooku nak euh, voilà citoyen la amna tamit xalat ci réew mi que nañ ko nangul li nga xamni mom moy xalatam wax nako nangul ñeneen aussi sen sen xalat xalaat liñ koy juger nak jugement yooyu ñi def man ne ma ko défendre parce que man du ma défendre kenn man bala ma défendre damay défendre d'abord, sama bop défendre aussi tamit euh, ñima qui gën té amna ñuma gëna na sama a une ah, bu dañ koy nax ci hiérarchisation j'espère que amna ñuma gëna ño a mëna défendre bon donc nak nekkuma di défendre l'indéfendable mais dama nekk di euh, euh, di à dire expliquer les Sénégalais que dans une démocratie on doit respecter la liberté d'expression et dans le journalisme le journalisme est le chien de garde de la démocratie donc journaliste bi amna droit wala animateur bu fekkee citoyen la wax khalatam mais à condition que khalat yoy nonou mengo ak li nga xamni mom moom moy les normes sociales voilà donc khalat bobu mu khalat wax ko waxam la mom la engagé mom la concerne maintenant dama gis ño xam ne dañoo wëlbatiku di ko attaquer di def ay jugement de valeur sur lui j'espère que Sénégal war na mën dépasser niveau bobu ay diw lii laak lee laak lee on est dans une république démocratique laïque Sénégal du deuk diine donte diine nak am na fi wax dëgg yàlla nangu nañ ko waaye du dëkk boo xam dañuy attewu li nga xam ne mooy attewu diine donc j'espère que donc ce problème a été déjà réglé président euh, Macky Sall mi nga xam ne moo fi jóge euh, wax yaakaaroon naa ni euh, waxoon na ci ba xamal les sénégalais gëmuloo leen ne effectivement li nga xam ne moom mooy góor jigéen du fi am te man boobu loolu laa gëm ba léegi ni te yaakaar naa ni l'actuel régime aussi dana ci xar tànk tubéyam

wat pare nga pour weddi ko voilà donc dama lak mom ci argument indil ay preuves yo xam day wone ni limi wax dëgg la wala j'espère que foofu la liberté euh, euh, euh en tout cas euh, d'expression war meuna toll waaye nekul di xas nit di ngagn nit di coowoo ak xiro ak ngaayo parce que réew mi am na priorité yo xam ne ñu ëpp importance yo xam ne tal na ko ay xiro ak ay ngaayo d'accord ñu ñëw ci la nomination de Pape Alé Niang. la à la tête de la RTS Pape Alé Niang est un journaliste.

mbirum askan wi ak lepp lo xam dafa jëm ci jafé jafé askan wi daaw ko saytu daaw ko génnee daaw ko wane lu bëri donc RTS li ñu jàppoon mooy côté pouvoir la andal actuellement nak c'est ce qui se passe RTS ba légui côté pouvoir lay wane bo xolé ba légui mi ngi ci dynamique bobu voilà donc amna ñu fa nekkoon amoon problème ak ki nga xamni moy DG bi fa nekkoon amoon ak mom si problème ci lu bëri am si ñu bëri ñoo manani ni euh, dañ leen a ci frigo bi am ñeneen ño xamni xeyna manani euh, danaka mën deggatu ni euh, daanaka kenn déggatu leen kenn déggatu seen kenn déggatu leen vraiment donc xaj nañu ñu xeyna fofu nonu sen ay ak ak sen yelef donc loolu day coïncider ak démb li nga xamni mom lañu la ñu célébrer mooy premier mai nga xamni moy droit vraiment du travail et des travailleurs j'espère que c'est la journée internationale effectivement yoo xamni ne dañ ko consacré ci lepp lo xamni ak ak yelleef ak dignité wu liggéeykat gi mais yow xam nga ni dans la précarité suñu presse bi fa la ëppee vu que sànq rek ñu gis ay affiches yo xam day wane ni effectivement euh presse bi dafa bëri ay situation yo xam dafa situation yu précaire yu difficile la ay conditions yu yi inhumaines parfois yo xam ñi ngi koy teg ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi bo démé ci bois yi na nga fay fekk un patron de presse bo xam mi ngi bénéficier wu parfois ci ay aide mi ngi bénéficier wu parfois ci ay yenen ak yenen ak yenen ak yenen ay privilèges yo xam daf koy am te privilège boobu pourquoi du partager ak ñi nga xam les journalistes te sans les journalistes patron de presse boobu du du du du am son sa raison d'être et j'espère que euh, patron de presse yi war nañu gën a mën a xel ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di ak les journalistes te li gën grave mooy patron de presse yi daf ci am ñoo xam ay hommes d'affaires lañ ñooñu mën le comprendre c'est des affairistes mais par contre amna na patron de presse yo xamni ay journalistes lañ comme ñun nekkoon sur le terrain xam les réalités de la presse mais pourquoi ces patrons de presse là wëlbati ko tey di sacrifier sen ay euh, euh, sen ay ay ay employés di sacrifier les journalistes di te déjà y a un problème aussi bo xamni mëna mën waxat kaa na nga dem ci ben boîte wala ben organe de presse bo xamni ni da fa fekk des contrats aussi contrat yoyu dafa am lu am importance dama fi jaaraat. ay presta ay prestataires mais lolu bagn len yéen les journalistes pourquoi ngeen nek ci ben boîte bo xamni dañ fa nek prestataire pourquoi nga nekk ci boîte bo xam ne dañ fay nekk parfois lu upp ay mais dafa parce que dafa am droit du travail il faut tamit journaliste bi xam ses droits d'abord avant tamit ñu muy mëna casse ak ses wala aussi daf ses devoirs tamit parmi ses devoirs aussi c'est important mu am l'équilibre de l'information le ba la clarté et la neutralité surtout c'est très important journaliste bi journaliste du far lool nak damay rejoindre ci

Euh, en tout cas de la, des radios et des télévisions sénégalaises j'espère que RTS moom la première la première donc l'ordre dafa am numérique c'est là je dirais c'est la chaîne mère donc am na benn euh, euh, dayoo boo xam ne am ko Sénégal ñu bañ ko instrumentaliser mais nous bañ manipuler les gens sur RTS mais que Pape aller aussi am na rôle essentiel bo xam mi ngi koy xaar xam nga moy lan moy équilibrer d'abord RTS fexe ba nguur gi mi nga xam ni moom loolu la doon xeex neen injuste la doon xex tayit

liberté d'expression dafa am importance parce que ñom ci liberté d'expression lañ faré lañ falo aussi bul faté loolu mën ni la presse en ligne ñoo leen fal ñom xam nañ lo reconnaître nañ ko donc euh, liberté d'expression, bobu boobu ni bañu kaa fragiliser mais ñu consolider ko solidifier ko j'espère que loolu moy li ëpp important D'abord, abord loolu la ko ñëk a ñaax mu bayyi te baña a utiliser l'état comme peut-être euh, arme de ko xeexee ak ñeneen ño xamni ni ju doole lañ j'espère que lolo du ci fek donc euh, message bobu la koy la laa koy deuxièmement mu assainir la presse par par par son ministre par son ministère parce que j'espère que am ben ministère bi nga xamni moy la communication de la communication de la télécommunication de l'économie numérique kooku non nak li nga xamni moy journalisme ak presse bi ak lepp lu ci aju ñu ngi daal di ci ministère bobu kok aussi li may xati ci moom liggéey bu reuy la moy war na ba communication fi ci Sénégal euh, surtout. Euh, euh, suñu ay autorité de régulation yi nga xamni gisunu suñu bop ci ñom mën naa wax lool gisuma ben yon sama bop ci nos autorités de régulation parce que lepp lu ñu def dafa mel ni dafuñu ko pour suñu intérêt général mais ñi ko def si seen seen propre compte donc gisuma sen bop ci ci autorité de régulation ñom ñoo wara gëna gën sen taxaway d'abord euh, d'abord aussi tamit aide yeeg ak xaalis bi fi mu war jaar jaaru fa parce que journalistes yaa ngi la réalité s'impose moy wane ni les journalistes souffrent d'abord

parce que bokk nañ ci ñi nga presse bi ñoo fal parce que ça yu ñu daan euh, woote wallu ça yu ñu daan yuuxu ñep xam nañ fa lañ daan yuuxoo à deuxième matin appelé les gens di ay conférence presse ay point de presse il tenait que des conférences des points de presse donc tay jii bu ñu demee ba fallu yakana ça saa ñu faté rek donc ñun aussi nañ leen def comme ñu daan défé ñeneen ñi nañ leen xex parce que bu ñu fàtte ni euh, la presse c'est le quatrième pouvoir et le journalisme est le chien de garde de la démocratie donc il y a ay leçons la yoo xam dama koy rappeler que nous avons nga que nous avons Sénégal. ce mot de la fin la presse bi d'abord doonuñu benn nit il faut nga la presse nationale presse nationale mo xam public bi privé bi presse bu meuna don doon doonuñu benn xiiroo ŋaayoo xaajaloo moo fi am dañuy wax lu am ba pare indi solution parce que balaa ngeen indi solution fa wax problème yi xiro ngaayo xaajaloo mo fi am xébanté mo fi am nawlen leen na maam naw loon parce que jàpp naa ni li am ci milieu bi dafa graw mo dañuy so xam ni xëy na na ci ben média bo xamni média buñu privilégié la état privilégié ko mu am audience que wi Sénégal may ko doole kooku bu dajé ki nga xamni c'est un journaliste un jeune entrepreneur ko xamni mom xarul c'est-à-dire xarul état ci dara xarul tamit euh, patronat yi ci dara mom moo am initiative bopam ibbi chaîne bopam formaliser ko parce que gars yi tamit dañuy de deug bu ibbi sa chaîne tamit aussi chaîne bi na formel aussi bala nga casse say droit da nga def sa devoir yakana voilà voilà donc euh, fii une chaîne yu aussi dañ ko wara formaliser le comportement des des journalistes aussi dafa grave même ci plateau yi ba fa demee c'est la médiocratie mon cher la médiocratie moy lo xamni pouvoir bo xamni ne ñi koy ñu koy ñu koy ay médiocre lañ médiocrité aussi mo am la médiocrité se voit se voit à l'état d'éveil xam nga moy lan bo démé ci les plateaux dañuy gis ñoo xamni vraiment nee ay journalistes lañ mais comportement buñ fay am mais dama nan mais attends mais ñi yeen façon journaliste lañ nga dam tamit ci télé yi wala ci radio yi dañuy jël ñi nga ni c'est du ay n'importe quoi ay n'importe qui ñoo fay nek ñoo xamni duñ ay journaliste

Les le du Sénégal ne bokku ñu ñun dañ rax nga dañuy journaliste dugg ci milieu bi di def n'importe quoi di poser ay questions bêtes des questions yo xamni impertinentes di def ay analyse analyse analyse bêtises j'espère que il est grand temps que euh, ñun waxuma de ñun journalistes yi ñoo wara mobiliser jëlee fi lool mais à condition que qu'on soit unis mais lolu amu fi ñu ben dañuy marginaliser suñu oui ou non parce que dañu déjà da télé la mais concurrence dans le cadre marketing et communication lorsqu'on est euh, euh, euh, dans une logique de marketing de communication opérationnelle il est sûr et certain que concurrence da La concurrence je ñak mais concurrence ñu def dans les normes ñu def ko ci nu gëna gën bil ihsan bil waru ñu jël concurrence bobu nan nak di ko def ci lo xamni vraiment lu ñaaw la lu lu manam lu xeeb la lu doy ba ñi nga xam sax duñ ay journaliste ñi nga xam ne mooy la askan wi dal di mujj jaaré fofu foofu xeeb journaliste alors que le journaliste il est le plus noble en tout cas parmi les citoyens il est le citoyen du peuple en réalité vu que il est aussi le député du peuple comme nous mu le citoyen du peuple il est le député du peuple il n'est pas quelqu'un qui est ordinaire le journaliste il est extraordinaire le journaliste aussi il est quelqu'un qu'on a ni dafa am valeur le journaliste il est considéré ci que les États-Unis nga xam démocratie ñoom ñooy chef foofu non boo gis ni vraiment euh, liberté d'expression dafa extraordinaire Mais ce qu'on xam day tok sax wax saga sax président du muju voilà donc on nañ a aussi euh, euh, diminuer euh, en tout cas les pouvoirs et les euh, privilèges aussi du président de la République vu que le président ici au Sénégal n'a trop de pouvoir ba daanaka demi Sénégal donc nous aussi pouvoir aussi beaucoup na live, aussi le pouvoir na pouvoir président de la République donc donc apprécier euh,